ñuy xamal rek moom mooy pëccoxoo gi tàmbali na fitna gi waaye tamit sabote gi rek ci mbiru ko campagne électorale bile bu ñu koy xayma rek gendarme ya ñoom daal ñoom ñoo tax ba euh, rencontre bi nga xam maanaam ndaje mi nga xam ne daal Amadou Ba euh, moom sumboon na ko euh, moom jotuñu ko tasaare moom ak i maron du feu ya bu ñu koy xayma ci wet gi ñoom ñoo ne nag mënuñu woon dara ci kanamu ko caravane bu kalifa Sall mi nga xam ne ay xeer ak tas tasar bu ñu sukkandikoo rek ci suñuy naataangoo jàppale nag na ci wet gi tam euh, fitna am na diggante militant Benno ak yu Bassirou Diomaye loole nag amoon ca bërëb Parcelles Assainies mu mel ni daal campagne bi lee ci fitna kott lañu ko tàmbalee. bokk na ci tam woy boo xam ne les échos yéenekaay ñu ngi ñu koy xamal ne ngeen ni tey jii fitna gi métti na lool ca boruka Parcelles Assainies xeer ya jóor nañ leen fa daal sànni fa ay soox paaka yaak euh, li nga xam ne daal moom mooy ay jaas yi lépp génn na fa diggante naataango Amadou Ba ak suka Bassirou Diomaye fay ca boruk Dakar Plateau moom leen nag ni caravane bu Khalifa Sall moom dañu ko song muy loo xamante ne rek xeer ya naaw na fa lool bu ñu sukkandikoo ci suñu naataango ca boruk APR seen ak siège FDS ak garde rawat na rek ay nervi ñoom daanaka daal xeex nañu fa xeex bu métti bu ñu sukkandikoo ci Les Échos ay yéenekaay campagne électorale bi lay ca boruk euh, Amadou Ba daanaka neexul ndax ci Les Échos nam ñuy xamal moom mooy bokk na ci nag responsable yu bëri yoo xam ne daal ñoom jàpp nañ ne ñu am taxawaay ci biir lekk parti ñoom dañu ko gedd ndaxte jàpp leen ni amul benn responsable boo xam ne daal jot nañu ko gis ci euh, ba mu dañuy fësal seen ak programme responsable nationaux ak euh, loko yi nag ñoo ñëpp daanaka rek dañu bàng seen po yoxoo jamono ji nga xam ne euh, ñu ngi amal lu ni mel enquête ci yéeni kaay moom xëta mu njëkk nag nee na loolee quartier amu ca bu ñu koy xayma campagne ba tàmbali na xeex ba pëccuxoo bi metti na ci lool mu mel ni daal sànnantey xeer moom mooy seetu njëkk ci bëccëg ku njëkk gi Amadou Ba moom jamono ji dut na baaraamu tuuma ku gi ñoom nag jàpp daal ne ñoom ñooñee ñoraguñu lenn yoon ba pare euh, jàpp nañ daal ñooñe amuñu taxawaay bi war bu ñu koy xayma xalifa Sall itam dut na baaraamu tuuma ñi xam ne ñoom ñoo ànd ak Bassirou Diomaye Faye ak seeni kanaataango daal la mu def moom mooy xaatim ab déggoo ak way nappkat ya jàppale nag ne loole bokk na ci lañu gis tey ji ci xëtu ko enquête yéenekaay yi lekk candidat ak seen ko tolluwaay fukk ak juróom-ñeenti lañ ñoom ñooñee euh, jël nañ date bu ñu koy xayma Bassirou Diomaye fay moom daanaka dañu ko tere rek ne ca booru RTS du fa waxee jàpp leen daal ne fi ñu toll ni euh, yéenekaay groupe Avenir Communication la mu ca tapp rek moom mooy xeex bi métti na lool ci li nga xamante ni daal moom mooy ndorteelu ko bi lekk campagne électorale la l'observateur yéenekaay la mu cay wax rek moom mooy candidat yi le ba léegi daal gisagul leen loo xam ne daal teg nañu ko ci xelu ko askan bi muy lu leer bokk na ci daal ay programme yoo xamante ne ni kenn xamul la ñu ca mën a jàngat ay déclaration yoo xamante ne ni buñ koy xayma ñu ci bëri seen ak programme amul benn ak chiffre leen daal ne candidat yi le daal ay naxasa xànnan kot la ñu xëy rek di yëkkati boobaak léegi bu ñu sukkandikoo ci l'observateur yéenekaay le point actu xëy na rek ne fang Amadou baamu mu mel ni daal moom ñàkk na doole lool ci boru ko ay farandoom jàppale daal ni ñu koy xayma euh, ñii daal di Abdou Karim Fofana ak Pape Malick Ndour Kot ñoom ñoo teewoon ci lancement directoire de campagne ba Moustapha Niass Farba Ngom ñoom kenn gisu leen Zahra Iyane Thiam naka la mu xam ne daal moom mooy dañu ko wax jamono ji rek te de bu fekkente ni rek dañu am beneen candidat bu dul Amadou Ba nañu ko wax waaye daal li ci leer bu leer moom mooy le point actu ne na jawriñ boobee di Aliou Sow daal moom la mu def ca statuam daal lu leneen lu dul Mahammed Boun Abdallah Dionne Pastef moom la ñu bëgg jamono ji bokk na ci daal ab poste boo xam ne daal dañu ko yatt bu baax a baax ban njeexital nag la mën a am ci lekk institution bokk na ci laaj boo xam ne la point actu yéene kaay jot na ko samp Anta Babacar Ngom moom famu na takku ba dëgër rek fëgg dënam wër mbeddu ndakaaru yi loolee Walf Quotidien yi nekaay moom moo ñu koy xamal ci langa gi le daal Anta Babacar la mu bëgg du leneen daal la dul fexe ba yóbbu ñi nga xam ne daal ñoom la duppe ay góor gi ñu dem à la traite bu ñu koy xayma ci ay Walf Quotidien Pastef moom tam feesal na yëngal na bu baax a baax loolee di waa Parcelles Assainies jàppale daal ni donte Bassirou Diomaye Faye dañu ko tere wax ci RTS Walf Quotidien ñoom lañ ñuy xamal moom mooy Walf TV ubbil na ko ay buntoom jox ko ay micro pour ñu mën leen faa dégg. l'info yi ne kaay nañu nag coalition XXL la maanaam bu rëy mobilisation ba tamit loone la daal di takkoo ca booru euh, Parcelles Assainies candidat bi di Bassirou Diomaye Faye donte caabi féet na ko ginnaaw jamono ji daal askan waxtee woon daal di euh, yuuxu turam bëri woon nañu lool jàppale daal ne euh, bu ñu koy xayma seen ba bëgg-bëgg bokk na ci daal teg fi poste que vice président jële fa loolee di premier ministre waaye tamit teggi loolee nga xamante ne daal moom mooy lu jëm ci wàllu conseil constitutionnel taxawal cour bi nga xam ne daal dana taxaw ngir saytu yenn ci ay dossiers yoo xamante ne ni euh, fetti na ci askan wi la tribune yéene kaay xëy na fàng tey ji seen ak njiit ti bugaat ngay dani moom bi nga xam ne nag nee na euh, bëggul lenn loo xam ne daal dana tënk bi lekk processus électoral yi ni bi daal li ñu xamal ne loolee bokk na ci daal la ñu cay tënk loolee di cour suprême ba ñu saisir ngir songu décret bi nga xam ne daal woon na bi lekk corps électoral bu ñu sukkandiko ci yéenekaay bu groupe D-Média Le Peuple yéenekaay kàddu gi tey jii mu ngi ko jox bu gay Touré bi nga xam ne moom xëy na nag àddu ci coowal présidentiel conseil constitutionnel ak loi d'amnistie ba moom nag jàpp na daal ne jamono ji ñu toll gisul lenn yoon loo xamante ni daal tax nañu mën a dem ci élection ak dal waaye tamit loolee nga xamante ni daal moom mooy jàmm ak salaam jàpp leen daal ne fi toll ni nee na crise politique bi lee fësal na daal ne euh, lépp loo xam ne moom moo ñeel conseil constitutionnel am na fa muy yem kon nag euh, waruñu rek euh, bañ lépp loo xam ne rek war nañu bañ jamono ji lépp loo xam ne ama ko duppee ab dogmatisme ci li nga xam ne daal moom mooy réforme yi ñu nekk di indi loolee bokk rek ci looy gën a dundal démocratie jàpp na daal ne conseil constitutionnel jamono ji du ab république ci biir république bi lee donte sax ab organe la rek jàppale nag jamono ji ci mën a sukkandiku ngir eh, teg yenn ci ay ndogal la libération yéeni kaay moom la mu xëyate ji bokk na ci coowal ministère la formation professionnelle ak annulation marché bu ñeel fukk ak benn ci ay milliards flagrant délire la nag maanaam coow la bëri na ca lool bu ñu koy xayma ministère bi nag nee na amoom ah, yëgul tinul ci li nga xamante ni daal moom mooy arrêt ba tukkee ca cour suprême daal di rek teggi marché bi nga xamante ne ni moom jotoon nañu ko rek eh, signifié ci ab décharge ñeenti fan ci weeru mars tàggat yaram ba la tribune sport nañu naka Teungueth FC ñoom ñi daanaka kenn mënul ci ñoom dara seen naka taxawaay dëgër na lool jaraaf bu Dakar naka suuxal na rek jàmbaar ginnaaw ndam la bu am ci moom Guédiawaye football club moom ca banlieue ba daal moom moo fay buur ndaxte démb daan na rek AS Pikine ñaari bal ci dara loole daal waral tamit jogante ba na mu jeexee neexul kenn ndaxte ak toji oto la mujjee foofe ca biir derbi bile ca boruk lërëm jàppale nag ni Tottenham bu Pape Matar def na jéego démb tas na tasar Aston Villa loolu nag waral jamono ji nekkaay bi teg baaraamam ci passe décisive bi nga xam ne doomu réewu Sénégal bile def na ko waral nag Tottenham amaat beneen ak taxawaay ci li nga xam ne moom mooy rawante